makafire su maqaf yi ma posé nii ba pare kenn xamut oh my god su <laughs> maqaf yi guys moom laa njëkk a town laay dem nii gars yi <laughs> su ma yeggee dagg téléphone te léegi ma yegg am na man de maa posé xel ba pare xaw ma time pour def lifin rëdd suma suma xéeni te suma xéeni xamul kawar rek laay lay leen laa mi ko bi sax kenn xamul maa yàkkamte woon xaw barke salaatu faatiha non ma ko buggaa boo xam ne laa def bala ma waaye aw ma time it's not bad nag allo naa ngeen def nuyu naa la allo jërëjëf naka nga def maa si jàmm suñu xaar yi looking cool thank you ça guddi lay def ci kërëw yi yoon bi yëpp ay xeer la xaw ma xeer xaw ma yoon wu yàgg la ñu ne ñu ne gars yi bëgguñ koo wecci parce que dafa yàgg façon ngi yoon yi ni mu bëree fii di kërëw yi ko ku dugg ci sareet de tubaab yi la abonné ma delloo la ko ok ami ni def ok maa ngi si jàmm rek naa mun naa la lu bëri ah te mën naa si vidéo saa ma delloo la ko oh my god jërëjëf ki ma loolu ku abonné nga delloo ko waaye dafa def yow li ngay def lan la ndax li ngay def lu jara abonné la man du ku nekk laay abonné maanaam ay sëriñ nit ñi saagande ak nit ñi juutoog yooyu duma leen di abonné ak nit ñi jaay xeesal <laughs> nit ñooñ laa dee daw <laughs> nit ñooñ laa du abonné <laughs> su kay abonné si man la wala kuy manière góor jigéen wala manière jigéen ak jigéen <coughs> du may abonné si ñooñ fañ ma si mere na naan xaw ma sama bopp it's not like xaw ma sama si loolu you know just duma abonné si si loolu you know loo xam ne sama doom bu ko doon des sax duma ko abonné xanaa town lay dem léegi tey ma yegg sama yeggee ma koy dagg damay dem pause dafa am ñu jënd ay yére ma war koo pause ba pare dafa xam lu war a sotawut fële so loolu laay demal maa ngi nii Scotland laa ne Edinburgh doo mën a gis pedd lifin bi la fii laa ne Scotland la lamp xaw ma lamp xaw ma jant bee tax doo mën a gis nopp naa la bi la <laughs> man fa am ma nopp te bu leen déggee rek ngeen xam <laughs> ngeen a repp mën ngeen di nopp war <laughs> ki salaatu faatiha yes I live in Scotland <laughs> ngeen a repp mën ngeen di nopp man faa nga ko ma nopp bëgg xaw ma lan maa ngi xaw ma lan leen bàyyi si yoo fleur luy loolu fleur ah waaw jërëjëf waaw foog naa nga ne jàngoo fleur gi nag <laughs> néew ma di waatara loo mooy formateur yi right now <laughs> mbaa du mbili politique ma dama fan yaa tax ngeen ñëw farmatir lu bëri la ma nit ñi di farmatiré gis ngeen yoon wi ni mu def <laughs> yoon wi comme sareeti mbaam boo ci duggee comme Afrique sareeti la illa fay ne di kir di rëkki rëkki oto bi fay rëkki rëkki rek romb na sax booy ça man kay duguma booy bu ça Oh wow, that's nice. I live in New York. Oh, stay safe. I'm so afraid of America because of their guns and stuff. But yàlla baax na. mo yow loo may reyee nii man maa def dara loo may reyee. yow doo dem sama lan. di bu bis bi xaw lan bu bees xaw ma jaa xaw ma daal lu nga bind noonu man xalaat duma koy mën a rii xolof wax yi bu la rawee ma ne man maa poose xef waaye xef yi fa mel ni lu xaw a dëng moom laa lijjanti ni taluma dara foog naa baax na de mhm, it's good xew yi may defar ngeen di ree xew ma koy defar de ma yooyu yiw sista maa ngi nii ami xanaa si xawma la séeréer si séeréer si si si sareet laa nekk oh my god maa ngi wax bu baax sax kenn néew ci kaw bi bot <laughs> ci sareeti laa ne xawma sareeti fas luuma laa jëm luuma laa jëm ak luuma nañ dem luuma barke yàlla xef bi fa dëng ndax xef bi xem nag laa dem ma xem ta rafet kenn du ko xàmmee sa ne maa poose ah waaye fa dëng fa xañaanta bond comme suma xiita xiitas yi may bañ de ñoo xef yi léeg te jant bene suma kanam gi duma ko mën a gis naa xees xaw ma lan where you from man de waa China la Chinese la China laa jóge de gisoo sama bëti Chinese yi maa ñuul te yaram boola si te dégg xolof waaye Chinese laa de xaw ma lan noo def xaw ma lan lan lan yaa ngi si xaw lan lan lan lan lan xaw ma lan mënuma riir xalof Adamo compte ba bu mu ubbeeku de compte bu mu ubbi ngeen tëj tëj leen seen compte yi ñoom ñëpp fii ba Facebook fii ba Instagram YouTube yëpp dee leen email plateforme yëpp soo leen emailee xam ngeen nu ngeen di def suñu surtout vidéo yi ñuy saagande hmm? ngeen di email plateforme bi ba pare lu gars yi wax ngeen wax ko gaa yi ne leen nangama nangam lay wax si vidéo bi nga bind ko si français wala xaa neleen ne ne leen vidéo bi nangam nangam la fay wax saaga ndey yëpp nga wax ko kay xamuñ li ñuy def moo tax ñu bàyyi seen plateforme yi ba tey yéen ñëpp email leen gaay di tey ñu tëj leen fu ne xaalis a tax ñuy wax fañ jabaate te soxot ta bon ñoom ñëpp moolaa ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp fañ jabaate te ta bon mën a fen tëj leen seen compte yi fi baxalaaqe kenn newu ci boos yi man kenn ak góor gële xaale mais ñoo wàcc léegi bu ma wàccee may dagg téléphone tëj leen seen compte yi ana Adamo comptam ba xubbeeku naa bu xubbeekoo ngeen tëjaat ko bu xubbeeku de day fen fa xas ba jël xaalisam Macky Sall ba ba pare fi dafay continuer di wax fu mu ne di wax rek di waj waji ni kacco gu kacco xam nga kacco kacco picc kacco kacco yu yu ndaw yu ne te yooyu Afrique ma ko daan lekk ma dee gune de di ko fiit di ko lekk ci kaca kaca lay def fu mu toll wej wej fay fen tëj leen ko kontam ji yëpp fay fen muy wej wej ni kaca kaca mu muñ jàpp ci fiit kaca kaca yi boo leen fiitee ba jàpp leen fañ daan wax de di yuuxu ndeysaan tiit ba bugg a fay fen muy wax fay fen lu muy waaj a wax fay fen xaalis a ko tax di wax li wax ne xaalis taxul muy wax fay fen mu tooy xepp la xaalis sa tax muy wax xaalis sa ko na ko mu ne yaayam sax fa koy may xaalis ne ko noppil te muñ ma saaga ma saagalu la ndey noppil te muñ ma def lu bon pour ñu saaga la ndey noppil te ma saaga nit ñi ndey pour ñu delloo la saaga ndey léegi fu muy jëlee xaalis bi mu jox yaayam pour yaayam noppi muñ xaalis bu ko nit ñiy fay lu ko jaral muy wax yaayam ne ko am ma fay la pour nit pour nit ñi saaga la ndey kuy wax ku mës a gis loolu ku mës a gis kuy wasayaane ko am ma yónnee la xaalis pour nit ñi saaga la ndey ba pare yow liggéey boobu duñ la ciy fay nga di ko def free just because nga bëgg sa askan ku bëgg askanam dana jàngal askanam saaga ndey tey fen fa bañ askan wi te dund métti te bon te a fen mu mel ni fel wu si mu mel ni janax juñ jaale fay fen man nag maa ngi wàcc fay fen tëj leen kontam yëpp fay fen tëj leen kon kontam yëpp kuy bind bind xaj faalewuma ko xawal ma bolo borom ñu suuli ko <laughs> borom du tax a saaga ab xaj bu jaale du tax ma saaga fey fen ñoom ñëpp fa ñuy fen bolog leen ñoom ñëpp yéen yéen a ñàkk fayda moo tax ñuy yeb leen su ngeen xamoon fayda ku definde ngeen bolog ko konoon ñuy def ne seen bopp di bu yàgg ku jóg rek yéen ñëpp na ngeen riit di ko bolog di ko rippot di ko bolog ku jóg rek yéen ñëpp ngeen riit mel ni ku dof di ko bolog ku jóg di def waxi dof ak saaga ndey ak wax yu bon rek yéen ñëpp ngeen jóg di ko riit di ko rek bolok ku jóg di def taati neen di juutu yéen ñëpp ngeen riit di ko bolok ku jóg di def waxi caga waxi xaj yu yàq gu ne askan wi yéen ñëpp ngeen riit di ko def nañ seen bopp nit parce que salaatu faatiha lii bu doon askanu naar la wala beneen askan bu doon it somaliyan wala loolu bu ko noon duñ ko nangu ñun ñoo dox xala ko rek lu ko noon as ñoom ngay gis askan ñu def loolu bu ko seen doom yi fañ xaal ko toog di seetaan xaj yi di yàq suñu askan pour lan man maa ngi wàcc ba ci kanam gaay jóg leen bolog ñëpp bu dee man sax maa ko def ngeen bolog ma bolog leen ñëpp tax xel bolog leen ñëpp fa ñuy fen surtout bàjjo yu bon yi thank you bàjjo yu bon yi fa ñuy fen xaalis a tax ñuy wax de te fa ñuy wax ne xaalis taxul ñuy wax fa fen xaalis a tax ñuy wax xendu leen xendu leen jàmm gaay ba si kanam baay xendu leen jàmm